lu garaawa sama gars yi dañuy ñëw ak yéen si annonce analyse li di contre polygamie épisode vingt huit sama gaa yi lu doy waar ndax su ngeen bàyyi xel kii nii di bu ndaw daal dinay euh, entamé si li nga xam te moo nekk néegu euh, njaago doon nag euh, uti ay besoin mais mun ñi nag xaw naa dégg benn kàddu bi nga xamante ne jaaxal na ko trop muy bu ndaw est-ce que su yégee loolu nangam ak nangam. comme ça veut dire que am na si ñu nekkoon di wax si moom te temps yi bunda moo ngi dutewu que ni gars yi am na lu ñu may nëbbu wax ni kaay ma wax la li nga xamante ne moom la gars yi di nëbbu mais pour moom jàpp na ni maako seytaane la day ut lu mu yàq alors que ni gars yi c'est bel et bien am na lu ñu koy nëbbu nag si kër gi mais nag loolu noonu amul importance bu mu xam ko ndax loolu passé na ba pare te euh, mënatul ñëwaat moo tax nag pour le l'instant affaire yi daal war na war na doon lu war na éclairer wu ci kanamu kii di bu ndaw te lan moo ko war a def muy kii di sëwru moo daal war a dog toog jël jël benn discussion daal di wax ak kii di euh, bu ndaw leeralal ko yëpp affaire mu demee au début jusqu'à la fin pour kii di bu ndaw mu mën a téye tànkam mën a noppalu si affaire yi mais nag mën nañ heure bu tegee tànk rek dégg gars yi di wax si ginnaawam wala di tudd turam moom loolu day xaw doy waa trop mot affaire bi dina compliquer trop si épisode bi di ñew ndax mën nañ ni euh, découvrir na que ni ki di yaayu ndiago ak ndiago mom si bopam am na li ñu wax ci bu ndaw ba tax nak bu ndaw dal dina frapper buntu bi bo dugg te gis na leen euh, ñu mujjé prononcer li di kàddoom muy bu ndaw affaire yi dina lëbal trop dina takarnaase épisode bi di ñew sama gay, nañ patienté xol nu muy démé te tamit ki bu ndaw na lay doxale si kanamu ñom ñaar moo tax sama gay. dina métti daal sama gars yi patienté leen ñu bàyyi série bi mu daal di annoncé wu xool nu muy demee nag one love sama gars yi acca sama gars yi